ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci Musaa mi nekk marwata ak safa ak aqiyam di Musaa ndax yàlla naatal xarnu bi ak aqi mboole may rakam aqi seen baaya ñoom ak aqi Seex ya Bàmbaam billahi mina sheytaani rajim barke sëñ Tuubaa Mbàkke kenn dal sëñ Tuubaa kon ñi dikk bokk taalibe bi ah, di bég lool ci bisu tey bi nga xam ni tey la tey la woote ba tey ji la atte ba ca bureau Ndar kon bu la yàlla baaxalee nga ni da jóge Ndar jaar Louga ah Louga nag ñun danoo am lu kenn amul ndax fii ñu toog nii di wax fii mooy kàddu kàddu li ko sabab mooy le 10 août 1895 ca Mbàkke Bari le euh, gouverneur Mouté yónnee commandant Leclerc lettre arrêté ni ko demal nga fekk Cheikh Ahmadou Bamba ci Mbàkke Bari di yow ma sabti comme tey ba mu demee fekk ko fa kon ca la fa jóge yow ma sabti la jóge la tàmbali liggéey bi doog a jóge ñëw jeewal dimanche dimanche bi mu ñëwee jeewal dafa yendu jeewal tubaab bi xëqanteeg moom bu baax a baax bëgg gëdd sëñ bi ci seen moomeelu bopp mu xamal leen ni leen digal lii ngeen di joxe bu jégewul suñu borom day ah du ma dem fenn ban fa toogee ba tàkkusaan nga am na lu fa xew ndax ba tubaab bi dugalee seenu caay-caay ci la malaaka ahlu badrin feeñ ci asamaan si suñu boroom yabal leen di leen tubaab bi de ngi bëgg a laagal sëñ bi dem leen ngeen taxaw ko commandant Leclerc bi mu gestoo asamaan si nii ngeen ñëwee tey jii muy xiin noonu la xiine woon keroog waaw ñu jàkkaarloog ñoom ñu gis leen xool leen tiit lool seen fa fasee ñaxal ñu ni sëñ bi ah ñii day waxal ci ñii sëñ bi ni leen ñi jotewoon ak yéen dara seen xalaat boobu ngeen yor de bu ngeen ci delluwul ginnaaw di ngeen ko jëflanteeg ñoom ca la nu tiitee daal di dellu ginnaaw ni ko ah, kon nag ñun doon doon bëgg a gëddanteeg yow waaye comme loolu la léegi may nan la nga fanaan koo xam ne bu woon mu yendu nga may ko mu fanaan kon looloo waral fanaanu jeewal gi la dimanche waaw sa suba sa di altine mu jaar kokki bi mu jaaree kokki waa kokki yëpp danoo dajaloo ah daal ni eh, tubaab baa ngi ñëw kat te dégg ngeen xëxante ba démb ca jeewal kon bu fi benn fasu tubaab bëggoo ñu sakk teen yëpp bi tubaab bi ñëwee contingent bi bi ñu ñëwee kokki wër wër wër ndox amuñu ndox ñu xam ne fii bu ñu fi yendoo du baax ndax tubaab dafa ragal mar ci la ñu daal di ràmbal nag ñëw fii ci barab bii barab bi Kanzul Mourtadine la tudd Serigne Touba bi muy ñëw fii fajar la fi ñëw kon ahlu fajarin la wax nee na fajar la yegg si fii bi muy ñëw nu laay la war waaw ñu yegg si fii yendu fi julee fi tisbaar julee fi tàkkusaan bi mu ñëwee ba fii ci la mbooloo mi dajaloo fekk ko fii boo jàngee jasaaw sàkkoor da nga dégg Moussa Kanaan keroog la yendu gaaru Louga gaar baa ngi nii ñu jàkkaarloog moom réew mi naa ko tee ngaa fetel jaar mu naan banaa ko bayal bi fi la mbooloo mi dajaloo woon bayal bii ñu toog fii la mbooloo mi dajaloo woon ni ko dañuy taxaw fii ñu yëmbat garab yi tey ni ko dañuy feteel jaar sëñ tubaa ni leen lu ngeen ci nam ñu ni ko luñ ci namm mooy tubaab bi kat ku mu mosoo yóbbu del siwoo sëñ bi ne leen un un ñu ni tekk mu daal di laajaat leen li leen lu ngeen ci namm ñu ni ko danoo bëgg feteel jaar mu ne lu ngeen ci namm ñu ni danoo bëgg euh, nga nga nga bàyyi nu ñu ñu tubaab bi ñu rey nu ba nu jeex mbaa ñoom ñu rey leen ñoom ba nu jeex waaye doo dem sëñ bi ni leen jaru ko bëgg naa dem te ñëw duma tuur deret du ma faat bakkan daal gestu ci mbooloo mi ku ñuy wax Cheikh Baara Gaye ak Cheikh Amalamine Gaye ak sëñ Mamour Samb Kabit ni leen yéen ñett ñooñee dem leen ngeen jëlal ma sama waxande yi fee ñu jóge léegi ci daaree kaamil bi ñu yenu waxande yi tegal ko ko foofu dee fekkaat ko ci kàdd gi ba ñu ñëwee déey ko ni ko mbàkke kat matal nanu loola dem nanu ba tijji wago wa ñeenteelu wago bi fëgg kook seeni yëre tegal ko gaalam yeeg yëpp dikk biñ dikkaatee fekk ko fi mbooloo maa ngi toog ngelaw ngelamu la keroog xaali aram mbay moo ko mujjee muy ax nu laay yu daan ko tudde jébbu juróom ba mu yegsee fii sëñ bi euh, euh, ñu nodd mu julli tàkkusaan ñu jullee tàkkusaan ba noppi ci la woo mboolee mi ñu daal daal leen yéen dey dafa am lu ngeen wax ñu ko mbàkke ñun kat doonoo bëgg a xeex tubaab bi mu leen gànnaay yi ngeen yor fu ngeen ko jëlee ñu ni ko ngànnaayu tubaab benn ko jox mu ne tubaab bi naka lay jëlee ngànnaay yu baax jox leen jël yu bon yi toog leen ma liggéey indi ngeen añ waaw bu ñu gilee tàkkusaan ba nopp leen toog leen ma liggéey indi ngeen añ kon dem gi mooy le 18 safar di màggal gi kon lii ngay dox ni ci yoon nga ko teg bi mu defee noonu leen toog leen ma liggéey indi ngeen añ daal di Cheikh Bara Gaye Cheikh Ama Lamine daal di bënn génn jiitu ko ci biti ñoom xaali Adam Mbaye ngi fi. ñoom Cissé Mbangoone ngi fi ñoom Samba Xari Cissé ngi fi ndax moo doon chef de euh, province démb ñoom waa kër Cissé Mbangoone ngi fi waa kër euh, Samba Samba Cheikh ma Samba Soxna ngi fi ñëpp a ngi fi maam seex Mbay fi la ko fekk waaw kon loolu du lu ndaw mu doon kon jate boobu tàkkusaan nga na ko Moussa Ka waxee woon ni keroog la yendu gaaru Louga réew mi naa ko tee ngaa fetal jaar mu naan banaa ko keroog la fa jullee salaatu asri fii ci suufu kàddu gu tedd gii ngeen gis ñu teral ko nii inde safinatu bi xayru usri doog a dugg ci saxaar gi doog a dem da mu noppi mu ni leen toog leen ma liggéey indi ngeen añ ñun ñëpp ñu dal tàllal seen loxo mu ñaanal leen ni ijaaru gooxi ilaa xaw mi sa àddatana wala tàkk fi naa yomb jamu xalku ni raab di bëreet jóg daal ràmbal jëm mbooloo mi dar ko mu yéeg ci saxaar gi bu yëgee ci saxaar gi mbooloo mi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo àndandoo ni dañuy feteel jaar ak seen ngànnaay yéeg ci yeneen wago yi bi ñu yëgee ci yeneen wago yi commandant Leclerc tiit na lool ndax nee na ah ñeeg seen ngànnaay de bu ma leen dina am dinaa am jafe-jafe daal di mu dugg ci biir bureau chef de gare bi woo gouverneur Moutet daal di ko ah am na luy bëgg a xew de munu ko lan munu ko ñi ñi nga xam ne doon woon day gunge sëñ bi de bi ñu ngeeg seen i ngànnaay te yéeg nañ ci saxaar gi nooy def munu ko na nga wekki wago wi sëñ bi nekkoon ñoom seen wago woow nan fa des bu nu ñu ñëw waaye ñoom ba léegi xamuñ ci dara mu lonki ko ba pare daal di avancé tuuti daal di leen hey ñu gestu xool leen mu ni leen ndax ñaareelu raay bi ñeenti wago nga fay deful dara mu ni leen dañuy bëgg a jël ñeenti wago yëlee leen ko ndax ngeen am place nekkate booba kàcc nañu kasabta nañu booba lépp ay pexe lañu ñu laal rek ngir bañ kenn bañ a génn gaar léegi bi ñu defee loola daal di ràmbal ndànk dox ndànk di dox ndànk di dox ndànk ba kenn gisatu leen Cheikh Baara Gueye Cheikh Ama Lamine Gueye ak sëñ Mamor Samb ay doomi baay lañu bi ñu gisee loola ñu daal di jël seeni loxo jaar ci suufu espace lonkante seen baaraamu sànqale ñu tedd ya ñoom ñett toppraay bi di dox di dox. di dox ba kenn gisatu leen danoo comp ci puutaral buur naaw jiitu saxaar gi ndar Cheikh Baara gay Cheikh Amalamine gay sëñ Maamor Samb kamit muy waa Daaru Gueye ak waa kamit Samb ñoo ñoo fi def kéemaan googu ba nu demee ni cëpp jiitu saxaar gi ndar Cheikh Baara Gueye daal ne ah defati nañ kawteef de ana saxaar gi Cheikh ñu xoolante ñoom ñett ana saxaar gi Cheikh Baara daal di jël nopp bi teg ko ci weñ gi ni ko ah mi ngi ñëw de ci tuuti saxaar gi ràmbal di ràmbal di ràmbal di ba dugg si taxaw seen i tànk ku tedd ki daal soonu def nii seen leen daal di muuñ bañam ni seel ya mm, Cheikh Bara Cheikh man nan ngeen def ñu ni ko Mbàkke li ñu def ump la waaw li ñu def ump la waaw kon moom murit li li li loolu waxee mooy ab murit dafa wéeru wéy ci ndigal waaw kon ñoom ci ndigal la ñu wéy te sëñ Tuubaa xamoon na ñoom ñooy kan kon biñ defee loola bi sëñ bi wàccee sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye Mbacke xamal ma ni ma loola comp ci puutal guugee comp ci puutalal buur googee nga xam ne moom la Cheikh Baara gay def Cheikh Amadou Lamine gay def ko sëñ Maamar Samb def ko bu nu toogee ba jëmmi jamono ma sikk ak ma diingat danañ ci commencé bëgg luñ ciy wax waaye loolu ñu xam ne yoonu murit léppam ci kaw dëgg la tegu nanu xam ni keroog bi sëñ Tuubaa di ñëw foofu ci gaar bi ca jeewal ba tubaab ba dugaleeg caay-caayam la suñu borom jox ndigal axlu badrin kon malaaka axlu badrin sëñ bi yéen ñi laay waxal de yéen ñiy def émission bii asamaan saa ngi soppeeku keroog nii la asamaan si soppeeko woon képp ku fi weer sa póot wowul te waxtu wi nga ñëw nii kon sa sa sa sa sa lii ngay def nii sëñ tubaa ànd na ci waaw dégg nga léegi bi mu defee noonu léegi mu sëñ baylaat moo ma wax de ci gémmiñam ni ma maxtaar man ko mbàkke munu ma ma diingat ak bu ëllëgee nga xam ni dañuy dingat rek nanga leen xamal ni comp ci puutalu guur googee lu am la malaaka ahlu badrin ñoom ñoo ñëw gunge sëñ tubaab ba fii ci gaar bi ba ñu yegsee bi sëñ bi duggee ci saxaar gi malaaka ahlu badrin te ni ko ah, ñun kat dañoo boole ak yow te malaaka du dugg ci saxaar nu ñuy def mun leen jiitu leen mandar kon malaaka ahlu badrin yooyee ñoo cëppeel Cheikh Baara Gaye Cheikh Amal Lamine Gaye ak sëñ Maamar Samba ca gaaru Ndar kon loolooy ndigal li loolu looy liggéey bi waaw kon man nag Makhtar Diouf laa tudd maa leen nekkal fii ci kàddu gi waaw liggéey bi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk. fii la ñu dimbalee lépp lu lu ab murit am tey rawatina tukkikat ba fii la fii la fii la ay kayitam defaroo fii la léppam defaroo ndax ma xamal leen ni leen képp kuy murit laa wax la ngay julli dëkk ci Sénégal barab bii. Sëriñ Tuubaa moo ko tudde kenn sul murtadin dencub gaañu baax ñi ndax kat benn barab la fi la sëñ bi mu jawaaje doog a dugg ci saxaar gi fii la kàddu gi dañ koo waddu Cheikh Abdoulaye moo ma noon waddu ko ndax murid dañoo xiir boo ko waddu danañ ko dagg kon képp ku sa aajo bëgg a faju taalibe yi nga xam ne dañoo am seen ngërëmal ndey am seen ngërëmal baay am seen ngërëmal sëriñ nattu dese leen sëñ tubaa nee na bu ñu yegsee fii nattu bi dañ kon barab bi day fal day fal folli liggéey bi nag ban ci nekkee léegi yàgg na jamono si yàlla bu léegi ñu ngi ci yeesalaat nañ ko ci sëñ Muntaxa Bachir Mbacke ku ko xool gis ngeen kàddu gi ñu ci liggéey bi gis ngeen école baa nga ne ci la xale yi jànge daaree kaamil baa nga ne ca biir kon maa ngi woo jullit yàlla yëpp taalibe yëpp fu waay mën a nekk ci réew mi li ma dégg. ku nekk France ku nekk Italie ku nekk espagnol ak ñëpp laay waxal Amérique ba ñëpp laay waxal képp koo xam ne ab jullit nga ngay tiijaan ngay xaadir ngay laayeen am nga fii wàll ndax sëñ Tuubaa ba muy dem di liggéey lislaam la doon liggéey li lislaam bi bàyyi ko woon ci yàlla bàyyi ko yónne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lislaam joojo la sëñ bi doon liggéey kon fii lislaam la fi woote kon woo nañu ñëpp képp koo xam ni bëgg ngaa bokk ci liggéey bii wala bëgg ngaa jëf ci liggéey bii yomb na sama numéro téléphone 77 la 643 74 81 sama tur Papa Makhtar Diouf moo ci ne ku soxla nag numéro compte bancaire bu boo ma wooyee dinaa la ko jox ci barke Cheikhul Khadim ndono yi moom du fi jóge xam nga doomu aadama bi nii nu toogee nii yaa gis ni ñaa ngi romb seen xel nekkul sax ci fii ni fii la seen aajo di fajo kon dégg nga wax bi kon doomu aadama yi ñoo ñoo bàyyi seen bopp am na ci ñoo xam ne ay taalibe leen de du ñu xëy mukk ba mu jaral leen ñu dugg dañuy romb rek te ma yaakaar ne yii fi sëñ Bamba yii kenn ku ne da war a am sa fulla ak sa fayda fii sëñ Bamba yendu woon du ma bañ bu ma nangu kenn ku ma fi ëppale ndax man Makhtar Diouf ma fi toog man moom ma barab bi yii maa ngi yéen ko bokk ndegam sëñ Tuubaa moom bi demoon moo woote ni yaa ahlal baari yaa ahlal baari ujoodul baari baari saxaay ki woo ba woo koy jibee kon def naa woon ñëpp. njeexital gi fi nekkoon démb jógewu fi képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bii te am lu lay metti bërki démb am na benn taalibe boo xam ne ñëw na fi ànd ak soxnaam soxnaam ba mu gëjee taxawal yàgg na waaye keroog ba mu tëddee guddi gént ko ñu wan ko mu ñëw fii jël kaamil jox ma dugg ci biir bi ma laa ne ko tibbal ci suuf si te nga ñaan te jàpp ba set nga ñaan ba mu demee li mu bëgg sëñ Tuubaa da koo ko defal sëñ Tuubaa ñëpp la fi nekkal. barab bi képp ko ko fonk di nga am li nga bëgg te waa Sénégal laay waxal waa àddina laay waxal Serigne Touba keroog bu fekkente ne woon ba muy dem dafa bàyyi woon suñu maam xeex tubaab bi jàmm du am ci réew mi kon noonu fonkaat barab bii buñ bëggee jàmm am ci réew mi ndax barab bi joxuñu ko cër cër bi ñu ko war a jox kenn joxu ko ko dañ koy tuddoo rek ndax am naa fi quarante ans naa ci ren. ren ji laay doog a am ay mbokku taalibe yu nekk ndakaaru Ndiaye ñu jéem a góorgóorlu jéem a jóg sax di góor góor li ci def sama këll laa daan yor juróomi dërëm ñaar dërëm fukki dërëm ba fi liggéey bi egsi fii kon yaakaar naa ni la ma sëñ Tuubaa waxoon Cheikh Ablaat loolu laay xool maxtaar ma ne ko mbakke mun ma liggéey bi kat liggéeyam sànq lañ la kon foofu laay xoole waaw kon maa ngi leen di fàttali ni leen jeexital bi mosu fee jóge bu nu fàtte sunu bopp. ku dëkk ci dëkk bii ak tarixa boo mën a ne nga am lu la metti fii sëñ bi yendu woon mënoo jaar fu ko gën fii jumaa la léegi yaakaar naa ne fu sëñ bi jullee woon bokkut ak fu sëñ bi julliwul kon loolu it ko delluwaat te xam ko gaar bii gis na sëñ Bamba mi ngi nii taxaw commencé naa daanu léegi ndax dafa yàgg ndax téeméeri at la ak lu topp waaw fële ñu tegaloon sëñ bi waxandeen yi maa ko tuddee bibliothèque Touba Lansar waaw fa la daara jëne fa la xale yi jànge kon woo naa ñëpp képp kuy julit képp kuy taalibe woo naa la ci liggéey bi ci barke Cheikhul